bu lëb dox sa digg ak seen déeti yow bu muy ñàkk mbaa am jógal nuy ji ko bu lëb dox sa digg ak sëriñ déeti yow bu muy dëkk mbaa gan jógal fekki ko bu lëf dox sa digg ak sëriñ déeti yow bu muy ndaw bu muy mag demal diglu ko bu lëf dox sa digg ak sëriñ déeti yow bu muy kenn mbaa lëf demal santi ko te luy dox sa digg ak sëriñ bee di ay lu far boole leenay ngërëm dégg ko sa digg ak sëriñ bee di ndox ak dugub lu koy bëggatee dox faral muslu ko sëriñ bee di gaalug boroomub aras da cay dem akay ñëw ku xam sopp ko bu dee dem ca yàllaa ka ñëw nag yawit nga war koo joxus lëf akay nemmiku ku dul dem ca péeyu boroomu aras ni ràpp ak ka cay dem asal war na ko lu dul dem ci ban baaka ñëw tey fexee amus lëf ba delloo te dum xel ba ko te day dem akay ñëw na ngay dem bi ñëw mu def sang ngay ab laram topp ko na ngay dem ci yàlla ak ñëw góotalee ka cay dem akay ñëw nga dib nii ji ko muy tawat tegal muy tawat te dolleet muy yiw te may nun nawet sarax may seree kiy dërëm ak ngërëm jullit laa te doo gant yow ab jullit dama bëgg jóg man liggéeyal la ren bu wér dolli maw nit balaa ruuja jot li yonneen bi ak yàlla yor yaa ko yor fayal ay fay bor yi may nuy mébét doxal sun digg ak kudul ab jullit ba kenn dootu soow ak ku dul ab jullit te may nu wér ak dund ak dund nag ba dee fulle dee kay sabab loo ko wut jógal nag te tijjil nu buntum ngërëm te tëj wunti lor faw yow yaa rafet te mboolem murit yi fajal seeni lor te faj seeni aajo te may leenu nit ku dul yow du faj lor du faj aajo it ba moo tax mayal képp nit may gu mat ku dul yow du faj lor du faj aajo it ba moo tax mayal képp nit may gu mat sëriñ saa ngi lay woo murit yaa ngi lay woo wuyul gaa yi lay woo te may leeni gët te mboolem ku lay woo ndaxam booya boo ndabam dal di dem bat asal yaa ci sut fabal lépp ndab raxas duy te far tawat faw tey jii te sañ nag tawat fa bal barke jébbal nu faw ak ngërëm te mboolem lu nuy bay na jub nangu lool bu am ci bu dëy bu maral am fi nun bu lëf gam fi nun may nu xar baati tool ku bay lëf lu bon bon na am jópp ren ku bay jópp gi jal ku bañ bay di xool sagal ay bu buuran fasoo jëm ci nun mu jëm àll mboolem lu nuy bañ nga suul fegal ay wu buuram fasoo jëm ci nun mu jëm àll mboolem lu nuy bañ nga suul lu am nag na seddit sunu xol faral raxas fopp moolal nu yow daala mool te foo seeru market ay ak lor faral farum mbéggu déeful ji sas lëf lu ñuul te markee li mbég faw wa kiy cant nag ci nun yaa ma may jàmm yaa mat di yool lu bon yaa ko fekk yaa nu féqal njariñ fasoo woonu bon ñëw fasoo woonu niir fasoo woonu jàmbat fasoo woonu mer te yow yaa nu booloo ki mbooloo ki bool fasoo woonu jàmbat fasoo woonu mer te yow yaa nu boolee ki mbooloo ki bool fasoo woo ci nun lëf lu dul mbég mu sax ba fir dëw si yaa màgg loo nuy fasool asal yaa nu teeru rakay def lu bon te yaatee ñu ruural mi yaa nuy xulool dangay sàmm boo xam ni bii sàgganoo na ngay dund yow mii sa nangul mu lool xarit bul fexe am ku ñàkkas ayib fexe am lu bindee ful ndox la sax ku ñàkkas ayib doo ko am doo ko gis te kat doo ko déggit gëmal lii ma wax te bul wut ku lay def ni boppam bu wér asal doo ko gis mukk lii duy larax te bul wut ku dul gis ci yow as ayib te bul wut ku dul wax ci yow wax suna sañuy bopp lay tagg kay dox di xas ñu dul ñooma lay dox di suufoo ka nax joxal yow sa mbir yàlla ak sëb sëriñ te far génn nit ñépp sab xol te fëx lu dul yàlla ak sëb sëriñ ak ndigal defal loola nit ëkk kon doo torox ku ànd ak ñu lay nax te foogoo ci lëf asal bant ngay saf bu max gay burux ku dun yaa ci gaayam waral muy bégit dadit dof ne ñoo koy xalootee jañax defal yow ndigal wéttal ak àndandoo te def kob xarit def ko ci wal mu bax ñu laaxal la yëkkal la ci dab yu set te ràccal la uppal la ci far la jox saxol sedd guy sa ràccu ngërëm budul jeeti ngay tibb kay dox di sax saxol sedd guy yëg sa ràccum ngërëm budul jeeti ngay tibb kay dox di sax te loo bég bégit tey bu ëllëg ñëwee nga gën faa bari ndég te gën faa ne tax defal nit akuk jur ni loo romb wéy te def kër ni ab àll doo geesu sax bu ak gor fa bee ay mbiram jox la yow te xaw tem mu nag ciy biram war la yow ku lay kër këril saa su jot am na kët ci yow àq bul def mbiram niw gelaw taxaw jonn tey jii ci sab sang ak ci say donga moo des ci yow def ko raw defal lëf ci biirum murit mbaa mbaa nga def ca kaw lëf defal lëf ci biir ak ca kaw defal lëf ci biirum murit mbaa nga def ca kaw lëf defal lëf ci biir ak ca kaw ku dul def ci biirit dafay def ca kaw ku dul def ci biir ak ca kaw mat di daw ku dul mbër ci biirit na def mbër ca kaw ku xeeboon ci biir ak ca kaw gàcce ñëw te luy indi gàccee ko ay loola yal na teg ji wéeg lépp luy tax mu sew te luy tax nu dénk gaa yi nuy sopp bég teeg ëllëgit yal na ñëw jàmm xew sëriñ bee sunuy gaay a ngi noo ngi nii sarax noo ci jàmm ak tiraanga ku yiw sunuy gaay a ngi noo ngi nii yaa ngi nii tawal taw bu dal xel bu tooyal lu wow dangaa mel ni am ci ba nit ñépp yow lañuy dox di xaaroo ka siinoo ka naw dangaa mel ni am ci ba nit ñépp yow lañuy dox di xaaroo ka siinoo ka naw fi sébbee ngi lay woo fi sébbee gulit ñu ngiy woote foo dem ña ngay bëgg taw ñaam lëf dañoo bëgg ndolleen ci yow ñu ñàkkit dañoo bëgg am lëf ci yow falal ñépp ful ñépp may ñépp yiw te leeral sa diggang nit faw yow di xut bay murit te doo def lu dul nelaw daala kay lekk ci lii ka bon di santaane ak jub te doo def lu jub ndaxam gaa yi ngay dox di xut baa la gën dangaa jàpp gaa yi nelaw yépp yee ba gaa yaa ngi nii yeewu yow ngay xaram jarag joo fi gis yaa ko may ay garab ba góomam ba ngir ay jógal faj lu ren boroomub lébét boo fu gis yaa ko faj ba góomam ba wér nag nga tee koo xasan te yow nag fajoo sa boppit wéroo ba wooyit xasan gënoo kenn kon te fajkat bu jàppoon jarag yépp faj te jàppul loram faj jarag yaa ko gën dugal faj sa bon gi bu wér dooratee fajal kenn ak bon asal kon nga gën ku wax lëf nga mer ku def lëf nga mer te kuy mer nga naa ko bi yow deeti man di fab teeka raggee ka fóotii tilim te fee sa tilim lii du tee set nga bon di waaree ka woote te yow waaru woo jugoo wuy jiit ay sa bon gii ka jan ndaxam ban ba tey yaa ma won saa ayib ba gis naa ko sellal ma nag yaa ko man ayib yii nu gis ak yu dul yii nu gis fabal yépp fóotal nu baaxal nu nun lu dul loonu tànnal fegal faw yow fegal noo fegal yit lor ak gépp bon kibar saa ayib jii ma gis nëbbu tey bu gis leen ci baayit da koy nëbbati ki tax képp nit jortu aw yiw ci man du wan nit ci man ñii lu muy sikkati ki tax may amu yiw ba may ndaw ba tey du fekkeeti may ñàkk yiw mukkati ki tax ay wujum mooy ma mooy saa barab du seetaanu ay jëm fu may nekkati ki tax may amuk dunda ku wér ba tey fasoowul ma ñàkk wér ak dundati ki tax may amuk cant ak ndolle nit lu dul dog fasoowul ma ñee kennati ki tax koo fi gis réere bon gii ma bon du wacceet du waññeeti bon gii ma bon fennati ki tax koo fi gis réere bon gii ma bon du waññeeti bon gii ma bon fennati ki tax may suturloo ka am saami bët nelul bam guréy gii ci man feeñati ki fab démb fab tey jagal moo xaloo fabit moo na ëllëg jagal léppati ki feesal nit ak singi waaye tojal te dox diggam ak xet du koy lottati misal sëng waaye ak tujal doo ko gis xesaw lëf te génnul faral yéemati te biirum nitan doo tayam kepp it bu dul kon boroomam ku koy fonkati bu dul kon boroomam ku koy jox sa mbir bu dul kon boroomam ku koy bëggati bu dul kon boroomam ku koy geesu sax bu dul kon boroomam ku koy toppati ku xam lii na ngay deeti rëy loo waxal ku xam lii na ngay xeeba mbindeefati torox lul te xam sag bon ak sag torox te xam nag ni yaa gën ku ne sangati bu fekkan ni sab sang day toppi nit la muy def xamal kon ni doo baaxati dalay jox di tallal te naa teg ci lëf ma jox laati ngay bañ faral tuubati ndaxam yaa ngi saf waa ji bay am dugub déwén jot mu naa man lu may ruujati bu fekkoon ni yaa ëpp say cam dugub kon it dëgg jëkkal déen toolati ku jiituy camam sax mu bëgg bay taxaw bu loolu nee faa ko waaxul jote dawal yow ba jot gaa yaraw seeni cam te dolleeti saw xel baraw leenati ba def kenn koo xam ni nekk kenn nekkatul sa diggal lar yàlla bay wammate ba def kenn koo xam ni kenn nekkatul sa diggal lar bi yàlla bay wammate sa kem yépp dandul baraw seeni gët te daw seeni xel dem fu kenn dul joti ku def nii ma wax kenn du seerut bonam ku raw ñépp sag bon ku koy seenati ku tolloo ku nit nag ñu gis say ayib ku raw ñépp ne faa amul maasati ku tolloowul ak yow du xam say ayib la ngay xeeba kay daane lay yëkkati te moo nit la muy dox di naw ngay falang ku am junni dootul naw tànkati ku bëggu raw ak yegg nay sànni bët ña koy ëpp ci teg teeki teg giinati ku bëggu raw ak yegg nay sànni bët ña koy ëpp teeki teg giinati ka ngay ngéeji moo lay xamal say ayib ba ngay ittewoo ak dañam fawwati karay ngéegi nag day waral say ayib ni far mel ngay gis sa jëf yëppati xamal yàlla xam yàlla rek kay jëriñ ku xam yàlla doo gis lu lay yàqati ku xam yàlla loo gis dalay far defar ku xam yàlla loo gis dalay yëkkati bu sag lottu dikkee nga def loo kaman bu sag man ñëwee it nga far santati lu mooy yàlla bon bon ndaxam réere ko koraw fopp muslul ci yaarati bayil yow sa bopp ak ka xam mante am mu dëral la may lay ngërëm jëppati te seexal la teesal la sellal sa xol te dollul la wëllis ku dul moomati te seexal la teesal la sellal sa xol te doylul la wëllis ku dul moomati te yeesal la fekk ngëneelam ca fab la nekkam ci yow ci ay nëbbati te dàkkul la mboolem lu bon ak ku bon ni def lépp loo soxlawul nëbbati di yalwaana kay xiifa kay marte yor sa xaalis budul jéelileetii sewaay di yalwaana kay xiifa kay marte yor sa xaalis budul jéeliliitii sewaay bakkan moo di noonu boroomam te nag boroomam balaa làq ak fal mu taay balaa kenn ma xëy ba nu noonam ba kët da koy dàq not génne suufam mu daay ku noonam ba deewul du doon nii yëfam bakkan nii bu deewul nu lay jox mi daay li ngay raasa kay wut bakkan bee ko yor notal boo notee am nga nee lan nga ñaay sataafum bakkan boo ko tijjee janoo ki téeméer ak kiy junni tijjil te jaay dangaa saytu say ceebi tey tijjiloo ku ne kay tawat nag ku yeex ak ku aay xamal yow ni say ceebi kat yaa ko yor bayil gaa yi ngay sikk tuubal te teey na ngay tuuba kay teey a kay yor sa xel dinoo yal sa wax boo bëggee tàbbi teey balaa kenn am yàlla am sab sëriñ te foo gis ku am baayamit am na yaay sa ndey nag dalay yor akay toppatoo ba fara jot mu soog laa feral jox sa baay te kon ngay juboo ak sa baay ak sa ndey nga fer jëkk seenu juboo rekk a aay ku yàkkam ci bay sànni weenu ndeyam te dem nag fa baayam du am ab liggéey du mën lëf du xam lëf du def len lëf dafay tëdd kay laj ne lii fii sa waay saa bon gu réy gi ma xam ak saa ayib gi ma yëg ak saa tilim gi ma gis doy naa xalaat ak a wax te bés bu nekk mën naa saa bon gi ndax te mu yem muy jëm kanam xuuxu lii doy na koy wax a wax gaa yaa ngi may yéema kay wax naa kilee mata xam ngir réere saa bon gi way mën koy waxit duma wax la yàlla xam doy na maa ngi seen yërmande man xam naa lu xew ku xamul na yéemu koy wax a wax maa ngi di jéggulu mboolem jëf ju bon ju ma jëf te maa ngi jéggulu mboolem wax ju bon ju ma wax te yàlla man yàlla jéggal gépp mooy gunu mooy diiru bani gone ba tey jii li lee mata wax te yàlla man may nu farloo farlu tey xire xir tey toppa topp ndigal tey def lu baax ak a wax te yàlla nam yàlla may nu itte woo ngërëmam ba fàtte mboolem lu dee faa soxla woo ak a wax ba ban ba ñuy dëkke sun xol dëkke sun yaram it ñuy dëkke daw lu mu sib tey dëkke def lu mu wax ba xam ni sun xol yi dootul sopp lëf lu ko muy nu itte woo ndigalam tey boole jëf ak i wax te lépp lum digle yal nan dàqalit xëbulem yal nan waxam gënalit mboolem lu dul la mu wax sëriñ bi fóotal ma saa xol bi ba dootu tilim mboolem ko am xol bu dul yàqooti yaa ko ko jox defal ma saa lépp sàbbal faw nii gi ngi gën loo def lu wax lu ko naa koy dox di def ak a wax tàbbal ma nee gundigal ak jépp waaju la gëm te tëj ko yóbbu sa doomu buntuma la ko wax sàmmal ma saa cër yi ak saa xol ba dootuma def mbaa may xalam ndare say mbég ji waxay sama wax tëjal nu lépp lu bon féqal nu lépp lu gën feesal nu delle ki yiw nangul nu lii nu la wax def nuy murit guddalal sun fan yi yow mi ko man saraxam ngir yàlla ak yonen ba def li nu wax mëddal nu wun ci naqal ubbil nu wun ci mbigit doxal doxal mu sun digg ku yéefar ba dootunu wax mëddal nu wun ci naqar ubbil nu wun ci mbigit doxal mu sun digg ku yéefar ba dootunu wax faral mu col daara ku lémb ak lu deefi tawat fegal ni it lépp luy ju ak tawat aki wax yaa wuutu yonnen ba tey yow rekk a fi sunu ndey ko am sa ndey danga fay jooyee ka dem ak a wax jógal te wallu nu tey jóg wallu bépp jullit ngir jëmmi yàlla fekkat yow sangi biiran wax yàllaa nu sàkk ak suñuy jëfam dénk la tey yow rekk lay diglu boo noppee ku fi xala wax sakul nu jàmm fa piir yàlla kon danga am ngir yàlla dootu la delloo xam nga yow li ma wax bu nuy jëmee natu ak kër-kër fabal nu sunuy natoo ki kër-kër joxub yéefar ba nuy tala wax tomil nu mboolem lu neexul jox ko gaa yi nu muy bun seeru mukkati nun koy def lu bon ak a wax dollil nu sunu gëm yi ak sunu diine tey rafetal sunu njortu tey rafetal sunu jëf yi ak sunu wax notal nu àddina ak taaram bi jox nu ko nag te sikkuloo nu ko it nin sikki góom ak sax ngënee li kër gile ak dee jox nu yépp nu yor du wenn yiw deste luy lor buñ ko déggati sax na njëg ci àddina bay raw jépp waa ji fi jag te jiitu fir daw si kuy dëddoo ka laaji sarax mi tiitu dee ak siraat ak laaji jëf ak i wax fegal munum bu nu gis kuy laaji jëf ak i wax defal sunu dee mu mel ni lem te dàq ko far waxal nu jéggil nu may nu doylu wëlli si wax fu nuy fasamtee ki ruuteewal te may nu fa mbir te àndal ak nu itam bantab bi moomale pax te dëgg moomale pax nay féex a kay galawit tey leera ni jant tey taaroo ka yaake ne tax te waaye kat guddalal suñ fan yi may nu wérug yaram te may nu wérug xol léegi lii la mu wax fajal nu suñ aajo ak aajo yi ku gis yi le way te dal di fay ay wi tax koo gis di tiita ka wax ngir jëmmi yàlla ji nangul way wi nangu gu wér fabal nu it sunu bon gi nuy xalaat ak a wax xam naa samay mbir te fab saa bopp dénkati la musal ma baaxal ma yor saa mbir yi lëf tëw la teggil ma mboolem lu tee man nii ma tekki fi lëf tekkil ma yaa tekki yow ngir kenn nit yëbu la fa dee ci seete la nit daa xëy di waxaaka def bu kenn gis la ma daa wax ak di def mani la nëbbal ma saa jëf yi fab say jëf sarax ma ko man sa jëf yi moo ma gënal saa jëf yi yow bonu la samay wax ak sama jëf nay ngeen ji wax ak jëf defal ma yaa mënta def kenn dootu wax mënu la faral ma moy gu ma moy soppil ma koy ngërëm it tegal ma gépp moy it guy dikk lii doy la yaa xej ji yaa am ngërëm sa sang yaa ko teral muyoo sa sang bi yow sab sang it muy la mboolem ku dul yow ba muy ndaw daana def ak a wax yow nag ba ngay ndaw ba tey yaa ngi defoo waxu la àddina ak dex la bug suuxal na gaa yi fi wan te gaa yi tey yaa ngi lay la waane yow lëbu la yaa ngi difee yëkka wiy gaa yaa ngi buusaka lab ku yow jox si la boppam koo gisul gone la damaa xamul man na may def ban yëgoo te juboo ndekoon ma def ko ba saa mbir yépp faf jubu la damaa xamul man na may def ban yëgoo te juboo ndekoon ma def ko ba saa mbir yépp faf jubu la man donte man naa ko dun juuyooti mukkati lëf te donte may nga ma lii kon day ma santati la la may mébét bu ma koy am dooma sikkati lëf yal naa ko am kon nga am koo xam ni sopp na la te saa mébét moo di man moo xam ni kenn du ma gis may bëgg lëf mbaate may wut lëf lu dul jige la soyam ma teeyal ma yëngal maa yëngal nit yépp may saw yaram tey sa mbubbit nag ba soppiku la man lii ma doy te lu dul lii waa ji bëgg na fab man jox ma lii jox gu ànd ak fan wu gudd nga la man naa di yow nga di man muy jenn jëm ju wér defal ma lii ma la wax def lii ma wax tëw la ma dénk saa bopp aw yiw ak muhammadu mi ndax yàlla boo leen jox aw yiw wudul jeeti nan yéene aw yiw te wax aw yiw te def jëf yiw tey dëkke aw yiw itam tey yewwu tey yeete te yow muhammadu jàmpal jàppal dénk bii ma la jox jàpp ngërëm kontelee ngay sant foo neeti te yow muhammadu jàppal dénk bii ma la jox jàpp ngërëm kontelee ngay sant foo neeti ruujal lu ban faru aw yiw kon nga saxle ngërëm tegoo bu yiw sang mboolem tegg boo féete bul wex garab bu wexee doomam ba kenn du ko sex mbaa waaju koy sexitam day dal di yabbeeti defal garab gu lewet guy sedd ker te guddul tey neexi doomit ba kuy mos dal di raaseeti féexal saqal nitaxal yaatul te bul ami dëkk garab gu mel nii ma wax doo gis ku koy baati wanal sa mer yow te jéggal jépp waaju la muy kon yàlla jéggal la fay law yi wudul jeexi ma dénk yi raw yi wit nag ak muhammadu jeng ak abdu xaadir ak yi maasam ya bëgg ngërëm njegam dangeen a bëggu yiw bëgg làq mébét wax leen yiw defu yiw te yéene aw yiw itam njegam dangeen a bëggu yiw bëgg làq mébét wax leen yiw defu yiw te yéene aw yiw itam wax naa fa santal lu rëy loo xam ni kum jubalut sa jub du yombati wax ji bir na gaaya ko xam wax naa te nee nit lu rëy man xawma léegi lu des lu dul fa boo fa bu jóg aw ngir mi tey dema dem kuy dem mu am dul dem man ma weesu la wéy te daldi doyloo sëriñ bi tey liggéey ak a gëm yéenañ man ak kunu mooy yàllaa nu boole diggal aw yiw te buñ fa demee day fay ku nekk jëfam kuy mermer ayibam kuy daw na daw ayibam kuy xul na xul ayibam kuy jëw na jëw bakkanam kuy ñar lu dul ayibam waatal ni kooka du nit ngir kooku gis ayibam jaatee mu am ne bëtam ku bëgg ndimbal lu rëy day dimbalib sëriñam tey fonk fonki waxam tey toppatoo ndigalam man noppi naa kat te lii laa dille waaju ko def am saa ngërëm ku deful ndax yàlla far ko yëram yow ñuy liggéeyal ku bëggul lëf sa xel bu mu dal loo def defoo yiw mu man laa sànni sànni sa jëf ngir moo la bind te moo bindit sa jëf yi nga jëf koo xam ni kii moo la may ay yëf du soxla sa yëf ku sàkk sa sàmm ak sa jur ba noppi di fay sa sàmm boobale lëf sa baax akat nde du lëf jëfal te bul noo sa jëf bul xeeb itam ku jëful yàllaa ko def ak la muy def def la ak li nga jëf yow ñii defoo li nga def moom it deful li mu def looxee ba kenn naka naw say jëf waxal mbata dox nit ndab la ndab nag du fa boppam di yattaka duy borooma koy yattu duy kookum ndoxam mu ko sax jàppal sa njaambur gi yow mii jëf ci jëf yi nga jëf ak jëf yi mbooloo mi jëf ngir yàlla daala ko jëf njëgam dangaa yëg ni yàlla def jëf ak ko jëf moo tee nga far jàpp sa njaambur te noppalu fa dab yaa ngi nii feesa feesa ñam yi wuute ba dee ku def lu dul jàpp sa njaambur ci dab yi suruf ndab lii ngi def mbeqi lii def ay tujal li le ndab defum si bet li le def ab ràcc nag bu ñu si yaa ngi fi dab yi le nag bul boole bul xayibal rusal ki yette ndabam xëy def ci yii mu ci def yaa ngi fi ndab yii leen nag bul boole bul ayibal rusal ki yette ndabam xëy def ci yii mu ci def ndab loo ci sikkal mu mer ndab loo ci tagg mu bég tagal ko ndab yi le ngir ndab yi di jëf yi mu jëf njëgam dangaa bëgga roy nag dëgg kon na nga roy koo xam ni kii seeni ndab ñoo bokk ñam wu ñu def koo xam ni kii yéena bokk peeru bokk ca jëm man ngeen a ànd di wéy bokk yi wax yi na ki jëf koo xam ni nag bokk leenu teeru boo ko gisee muy génn kay wàcci tàggoo leeni wax ak i jëf ma jóg defal gaa yi pindoo di bayit yi rafet ndax seeni xol sedd seeni itte yëkkatiku itee di ko mu murit mboolem murit bu ko am sangam gërëm ko lu muy wut lépp jàppandi ko wut leen it tey rëy sàkku yi ngërëm fexe ndam te sopp seenu sëriñ topp yi waxam te jako dab leen a dab ngërëmam tey sàkku fa wu mbégam te lépp lëf lu mu bañ daw leen a daw sori ko man nag sëriñ yéen itam mat leen itaalu de nag te yeesalu tuuba ku njëbbal akuk bayku jëm leen a jëm ca kanam mboolem lu dee fi mébét ci jëm kanam la ko dee fi làqi sikku na ko kem lu murit jëm kanam gën faa jigéb sëriñam gën faa defub xaritam yow sab sëriñ jige ko jigéb sëriñ bokkul ak fu mu toll gis la ko kër ngay xoola kay diglu waxtaanam te santu la ko jigéb sëriñ moo di yow muy toppatoo ndigalam ci lépp loo xam ni bëggul loola it nga ba ko sëriñ ku aw ndigalam moo nekk ci wanagam ne ci xolam ab sëriñ kuy mooy ndigal sëfu ko yow donte yaa ngi ci manding tey awit ndigalam yëgal ni yéen a ngi riisoo yàlla seere na ko yow donte yaa ngi ci manding tey awit ndigalam yëgal ni yéen a ngi riisoo yàlla seere na ko te donte yaa ngi ci poojam tey moyit ndigalam seenub diggantee fi fit ndar lii ka bon moy ko ku aw ndigalam moo nekk ci wanagam nekkib xolam ab sëriñ kuy mooy ndigal sëfu ko yow donte yaa ngi ci manding tey awit ndigalam yëgal ni yéen a ngi riisoo yàlla seere na ko te donte yaa ngi fi poojam tey moyit ndigalam seeni diggante fi sut ndar lii ka bon moy ko tey jaayi tindoo di seenu dénk mat na ni ngi nun ñépp yal na sunuy mbir jub te yëkkatiku xanuñ falee kafa beeka bindelëf ak a far yal nañ fa fal ñu xaloogul far fa seen naqar fa dee caatteelu ne kay binde gépp ndogal yal nañ faattee sunu jëm kaw dogal ko fa far fa dee fi dëppe ay ak lor nañ ñu dëpp di wéy yal nañ fa dëpp sunu ay muy weeg sunu lor fa dee fi tàggate nit jox nit mu saytu mbiram yal nañ fa tàggate mboolem nit ñu jox nu nu yor fa dee fi seexale nit muy sant tey amu nit yal nañ fa seexale mboolem gaa yi nuy jot mbir fa dee fi sellale nit muy sell kay amu yiw yal nañ fa sellale mboolem gaa yu gëm yi nu wër fa dee fi sante murit bëral ko dolli ko ndam yal nañ fa sante murit buy aw ndigal te du wor fa ñuy dajee ka gisee kay séddalee ka defar yal nañ fa séddeeku nekkub për bu tax mu sawar fa ñuy fexee ka fajey aajoo ko dàkku lu bon yal nañ fa faj fawu aajoy ñépp dàkku fa bor barab ba ñuy defe biir ak biti luy bëgg am yal nañ fa def lu nu saf loo xam ni bette na ñor fa dee fi yokke fanu nit fan wa yokk bu wér yal nañ fa yokke sunuy fan yépp yokk bu wér fa dee fi ubbee ka nangu ñaan a kay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa wépp naqar fa dee fi ubbee ka nangu ñaan a kay may mbég yal nañ fa nangu sunuy jëf far fa wépp naqar li xol bi yéene ci aw yiw yàlla daa la ko xam moo mën ni cas benn lii may bëgg it ni ma am mboolem lu bon bëgg naa caa gën ma set ca bu wér te dëkk ci yiw te ànd ak yàlla faw te gëm man yàlla laa bëgg a far def àndandoo fu ma jëm ngir yàlla moo ne fi man moo nekk it fu ma jëm tamal sa bopp lu dul sax loola ndox la gu bon te ànd boo seeru tàggoo cay xaloote gu cam santal ca ak topp dëkk ak yàlla doo tuxu kon bay wéeta kay ñakki àndaale ka dox digalam dëkkal ca ak topp toppay njëndi dëgg lu dul xëy gent lar bu ca dul jóg mbég du jóg ci xolam ku dëkk ci topp day am yaari ajjana far jee ajjanaa ngi mu àndal jee ca lay xala jëm njëgam xamoo ji mu àndal moo di xam ga xolam xam yàlla jee mu xaloo dem nag ku nekk a ko xam te gaa yi yal na mu am num yaari ajjana yii ku boole ajjana ji ak jee du ñàkk xoram ak topp yàlla ni gaalu jéeri rekk la mel dafay dawal yow di wéy jëm ajjanaa ci ngërëm boo génn ak topp génn topp rekk di ay ku génn gaalam te yëggul sikk am ci mbiram ak topp moo am njariñ yal nan ca dëkk bu wér te sax ca faw ba dem firdew si ànd ak ndam bu ñee kul topp yow kuy topp moo mata ñee kuy topp moo nekk ciw yiw jëm ci wépp yiwam bu ñee kudul topp yow kuy topp moo mata ñee kuy topp moo nekk ciw yiw jëm ci wépp yiwam lu toppkat mën a am ci yiw ci addina ji lu rëy rëy it xet gu tukkee ajjanaa ma ndaxam ajjana yal na nu yónnee ci xetam lu nu doy nuy topp xet ga ba janloo ki ñamam di ca ñam te yàlla nan mucc tey jii musle mucc ëllëg musle ti far gudda tiw fan teg ci wér gi yaram addina lor ji ci biiram jépp yal na nu moy te mooy sunu nit te mooy nag waa ji neeku nitam te yiwu nekk ci biiram yal na yegsi ci nun yëkkiinu jàmm wu lor dul bor xaloo ki ndawam alaaxiraa ngaa ki lor moom it yu ñépp ragal lor yooya yal nanu muy muy waaju gëm sëriñam ma ngaa ki xiiwal ma ngaa ki ndam te yal nanu am mboolem la fay xiiwal ak ndam ak mébét mu fa am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét teeg ëllëg may nu saw ak may gu lor bañ a am te yal na yàlla ni cas mboolem lu dee fi mébét teeg ëllëg may nu saw may gu lor bañ a am yow yàlla nangul lu teew ak luy ñëw ak lu wéyit ngir gëm ni ban ba ki lay xam leeka xam ak a am ban baa la xam am la moo def lépp loo ko digal te sànni loo diglewul moo tax mu xam la te am te yàlla may nu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am te yàlla may nu def nag ban ba nii mu la def ba xam ko am ko bu wér moom it mu xam nu te am muccal musal am njariñ may nit ku nekk njariñ xam-xam le mos mos le raw xam ñépp nag rawale yii fukk yàllaa ko am koo xam ni am na ko it yàllaa ko fam may ko yàllaa may nu fukk yi de te may nu faw sa gépp cant ak sa ngërëm ngir tedd ngay Mustafa ak jëm mi ban ba mile te leeralal sunu digg ak ban ba def nu mbégam te def ko muy sunu mbég fawit defal nu lile sëriñ bi yal na xolam bay sedd sedd ci nun tey jëm kanam ba ba nuy dem kër gu tedd gële sunuy xolit yàlla nay dënn ci moom ak a jëm tey sedd faw ci moom it nuy gërëm bëtale te yal na yokk sunuy fan yàlla yokk fanam nu bokk jag gudd aw fan jàmm jaa ngi ni le lu muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am lu muy wut ci nun kon nuy faloo ko fale la muy mébét ci boroomam lépp yal na ko am te am la muy wut ci nun kon nuy faloo ko fale murit bu nekk la ko sangam di sakku la gën mboolem la muy wut a kay ngéejoo ka daw di jëli kuy sakku daggaa ki ràcc ak ay jaxas bu ñu koy bayloo na bay léegi kon nee saa ko yépp a ngi de koo xam ni day bay bu seenul añ ba ak ba tamit teewul ma ngay ñëw muñal nit añ ca far bayali yow ban ba dolleeti nu jub dolli noote ñu jub dolleeti nu taalubee kii taalubee ti file ku dee fi tudde murit dollil ko ak muritam te dolli ay muritam fam ñépp nag rawale yàllaa la may dund ku wér may ko jaamu gu wér mbaa sax nga fay ko borom boo dul mayitu war a fay ku lay lebal boo ko dul may lëf te fay ko mu doy labon fa yoo ko ma yoo ko lëf di may ku ko moy ay dal na képp ku am ak jot te jéemu la jot mboolem njariñ lu ko raw tey rëcc moy gu mu moy ku lay ko bas aka woo diiru ba ngay gone yow ba jàpp tey jii nga war koo geesu faale ko tey yàllaa ngi lay soññ ak yoneen baag sa sëriñ ngir bëgg ngay waaju dundal diina jiite gu ay te sab sëriñ jox na la yóbbal bu doy sog a dem xamal la ngir ma bu wér soññ te soññañ wéy koo gis xamal ko boroomam yàlla yow te taxaw ci diine xol bañal bul def ku àddina jay ku xam lu wér cëng biir ak biti ket la ca gën jëf jëf ju wér cëng biir ak biti noonu la day te xam nga xel ni dee day ñëw ci àddina jii day wéy te laaxira ngay teg bët bu wér ci sa pay dalal di jëf lépp loo soppu payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam ngéewé dalal di jëf lépp loo soppu payam ku ne gis te dal di daw lépp loo bañ ak payam ngéewé way jot na nit ku wéyul buy rax bi jaaw ake wam moo war ni tey li ma dal moo war ni wéy sama ndey mag day am ru way ndaxam perlii ta mag ku wayul ngir way na ci nàmp way ci dëgg si yi may way wéral nu cin te may nu way tegal nu ca way setal nu wicc ci bon bon yépp jox nu tubéy musal mu ci bëgg lëf loo xam ni lii du ngërëm rekk ak ndigal def nu soppe bi yàlla faw bu rëy naa jëm ci yàlla bu wér saaxol bi jëm ci bu wér samay cërit jëm ci biir ak biti may ku ñu roy ku nekk foo xam ni mboolem yiw nekk fa am te jëm fu dee ful fores yiw farlu war na la kay addina kër la bu ñuy takkoo lu nekk ka am alaaxiraa di kërug fay jëf ju yiw du fa doy te doonte dund nga junni at di jaamu bu wér du tax bu ñuy faye ngay naw pay ga luy fexe ey ngay dund loo xam ni lii nag xaaju koo jige sax te sànq ci at yu takkoo takku yàlla na nga yey yow yàlla boo farle yoo sax yàlla yàlla na la saf yërëm yërëm nu te may nu doy lu wëlli su lay dëkkal ci moytu te dëkkeek farlu waxatoo jot tey daw ku sàggan akuk càggan di fonk sa tey sa tey ju ñëw def ko ñëw sas bay ko mbay mu rafet mu sell moo xam ni moo gën bay mu nit masa bay sagal ci tuub ak xalam sang mooy di wéete ka muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf la lay xalafay saxal ci tuub ak xalam sang mooy di wéete ka muñ te xam ni kuy fay jëf say jëf la lay xalafay na lépp nangu sunuy mbir jub sunuy texe jub naataange ñëw faw bii rek biti dëkk si nun walloonu wërsëg wu suuxal aajo yépp wu lew wu yaale wet fedd mboolem xol yi guy yëtiram tàbbil ngërëm tàbbi tawféex ak tiraanga nu for tàbbik cofeel ak ngañaay ak fan wu gudd wu gën barkeeku yiw yal na takk ak jàmm tekk si nun te wàcc faw fi nun naatal nu dëkk fi nun na dum nu yëkkal nu taajal dag yu tedd fi nun mi def mbégum ñépp faw ak say ngërëm ni nu foox wàccee li xéewal yu dul jeexal njariñ yu ñu naw yu ñépp xañ may nu faw doy lu wël li ci seex toni nu yug lu amul ñu jox nu faw nu am sunu diw ak sunu mbaanig boole yóbbu nu ciix bëggal mu nun ñépp yaa yor mbég te yaa mën a jox nit mbég sabal mbégi mbég yuy yuy di wéyit ni nu foox neexal ci ñépp te neexal ñépp dàq fi nun mboolem lu neex ak lu sedd xol saxal nu ci nguur wutul nu mboolem lu nit ñuy dox di bëgg ka wut ba gis ko yet nu ko nuy yokkoo ka am lu nu wóor tawal mu taw bu ñu roofuk mucc roppi ca lor bu dul séwét bu ñu taw féexal notal mu kajoor bëtal mu waa bawal ak waa fépp bés gu rafet ñuy sëgg faw fi nun nuy sam sa kay notu góor walal saay gi te muñ bul jéema wal gu ko moy kuy jéema jàpp ayu jaambur di wal du ko man toggal ba sottal ku sottal sotti maa la ko wax dugub ju ñor xomm góob ak dagg rekk te jëm nawet dafay wàcc njeex a gaaw a cay xala am lu man di am wàcc am tey nii misaal ak a jam sa njaada gaanum nawet bu yeex a wàcc bu jub buy tax sa mbir ak mbirum ko yéene jàmm yéen sañoo dagaanum nawet boo xam ni bii di siwit nawet bu lépp ñoree ab taw da koy taxa bon ku xam dugub ci nawet ak gerte rekk mu doy ku xam lu doy na ko doy loo gan du yokkalu gan nawet bu wàccam jotee fa fu wàcc rekk ca gën nawet bu cang rekk a bon yeewul soree ki xaran sunuy nawet yépp biir ak biti yal nañu jub te mucc faw ci gooy ak cang ñu boole nu tin ñu ñépp yal na sunu ay ak ayuk ku nu saf rafet yéen sell jub saf saf yàgg sa kan te yal na ñépp ni ñokket wàcc seeni barab ñëw faf nu walle sunu ay dëkk faw fi nu fu nekk yal na fa ndimmal buur a jëm si ci nun te fekk ndimmal fi nun ñuy dàkku ay segi fen yal na njariñ buur a gépp wet ñu xëpp fi nun sax dàkk dàkk fi nun lii yàlla daala ko man addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tandu bu nangoo nangu tey sunu muur addina moo di nawet nun ñépp yal na nu am nawet bu tandu bu nangoo nangu tey sunu muur barke di dem àjjana yi firdew si yal na nu am nun ñépp barke bu dootul dañ ba dëkk ci nguur bu rey ko gëm yàlla gëm yonen ba wàcc lu bon nun ñépp yal na nu di kàngam ñu xëy defi buur ka yokk moo di ka yokku jub te yokku ngërëm ñun ñépp yal nanu sax ci yokku faw bu wër ka dëddu moo di ka dëddu mooy te jublu ndigal nun ñëpp yàlla nanu sax ci dëddu faw di nuur koomum njariñ moo di cantu yàlla yàlla nanu am koomum njariñ faw muy teg lor te lëf du ca xuur ka tedd moo di këdul mooy mukk yàlla nanu am ñun ñëpp tedd nga jël ndam bi ti jël ko ca biir ka yàlla rus moo di tey rus yàlla yàlla nanu rus ñun ñëpp yàlla mu rus noo rus ba fa fa dunu wiir ka topp yàlla amul yar dëgg yàlla nanu am ñun ñëpp yar bu rafet buy teg lu bon tegu toor kay sant moo rafetum xel dëgg yàlla nanu am ñun ñëpp xel mu rafet muy yéemu nit fa kajoor kay nëbbu nit ñëpp am ak yeewu yàlla nanu def ku yeewu jar ci gépp wet di jàpp ka fiir ka yàlla àndala jël ndam rikk yàlla ñëwal ànd ak ñu nag képp koo àndal te dolli nu muur daxal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo koy jëm kanam li kanam daxal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam te def nu ñuy dolli koo koy jëm kanam li kanam yokkal sunu dig te jañ koo jañ mu wéy ca kanam kuy bañ ñu jëm ca kanam noppal ko jël ba kanam mboolem ku nuy bége bii rek biti yàlla nañu saf jañut digam ca kanam naatal ko yokku digam mboolem ku nuy buuxa kay tas déeg yàlla na ko jañ simkan mu gantal ñu bay bàmmeelam ak wanagam ku bañ ñu ruural ko day dolli ñagam ba mu tal te xupp kuy ruura kay sàqim ñagam ni ko am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loola ti rem ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kawut ñi nu am ñun ñépp yal na sunuy mbay nangu loola ti rem ñu jàpp mboolem lu nuy sàkkoo kawut ñi nu am ñu nangu jël fawu bii rek bi ci sant bu wér ñu faf nu dolli ci gépp wet nu xëy di gërëm alhamdulillahi dolli sant daala nu war may yaa ngi ñëw dajaloo ni bay si nun ni goram yii ñëw na yii ngay fexe ñëw jàmm rekk fi am bon bon yi mooy nanuy yàlla gën ci nun ku ñu xam ganum njariñ masu fee jóg mukk dootu fi jóg nitug sabab masu fee am mukk dootu fi am yu bon yi kenn xamul ak mboolem yu bon yi ñu xam yàllaa nu fii wala nii fii woo ko mooy fu ñu jëm ngërëm ci kaw ngërëm ak tuubub tawat la nu fas yéene saxal tey fa boo kay jëm kanam li kanam doo def lu dul noona bii rek biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikki sam noona doo def lu dul noona bii rek biti loo mën a def muy noona naa la ko wax kuy sikki sam noona yaa xam lu wér yaa ko am yow rek yaa ko manit te yaa ko sañ loo deful accam da dul noona tuubay la war ku la mooy santay la war ci sa jëf aayoo añaanoo te siisoo kenn it noona yow loo dogal dana am bis lépp loo dogalul lu yàgg yàgg du am ak dëgg saw yoona rafet ci yow njort rekkay mbir ci loo mën a def jortu yiw ak jëfi yiw baaxut ña baaxoona doo def lu bon mukk doo seetaanu ay dinu dal xiinal ngërëm datti gépp cant saw xiina xiinal mu xiinu ngëneel ak barke xippi ci nun ba ñépp bég faw bay wax mbir yi rabboona yaafal ña lay moye kay moy loo ka sikka ka bañ moo tax ñi lay sopp seenu cant gëndoona sañal nu bën bëni lor sañal nu bën bëni yiw xëynoo ki cant yu rëy yoo xam ni déggoona xëy noo ci xam-xam yu mel ni waame feete njariñ dikkal saxal yiwu suuxal saañu ak suuna jañal nu mboolem lu nuy musloo ka bañ mu ni mes ñoddil nu mboolem lu neefaa lii la neexoona fayal nu bor bu nu yor doylul nu wëlli ci bor dàkkul nu gépp moy ak koo xam ni sam noona réeréy waral nit a bon réeréy waral nit a mer ku saw yaram mate say gët suulu doota la mer réeréy waral nit a bon réeréy waral nit a mer ku saw yaram mate say gët suulu doota la mer ku nekk cim fax ba suuf ak bant bokk la war nga xam ni lépp lu dee faa mer mu ñuy la ca war wéetaayu àddina ji ngay gis du lor bariwul wéetaayu laaxira rekk kay lor te moo gën a tar sëriñ bi dem na boroomam des ci yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gën bir sëriñ bi dem na boroomam des ci yàlla na nu may lu gën gënal nu gënal nit ñépp may gën bir loo xam ne lii bu fi nekkoon def ko fawu ci nun yow yàlla def ko ci nun ñii def gu sell gu wér dem gii mu dem def ko muy ndollem lu màgg ci nun dig yokku fawu ci nun tey sàllu ndam mu nu far jagam gi may nu ci fawu jag gu yéemu gu sax akuk jigéen yàlla faw ak gis ju sell ju ñor xëy gii mu xëy ni nu mes fawit mu sal nu ci lëf lu sax lu dàq fi nun foppuk jural ñenu jur ubbil wunti yi wan ndég yuy njariñ di bawoo yusuuxal njula fappang mbay mu nangu mu ñor may nu tabak sellal ak xaalis bu lew bu lewet boo xam ni bii lu nu jox jox nit ñi muy niru ngar loo woo mu ñëw fawu koo wooyit mu ñëw ku la woo fawit nga ñëw wooye naa la yi wuyul ni jasar woo naa la man ci sa tur woo xam la ak ci sa tur woo xam lewul wuyu maa yow ngeen jikuy amu tur ñëwal te bul ànd ak as lor àndal ak sa njariñ te dëkk faw wi fi nun nuy mucc faw wu ci lor ngay bég ci nun faw nuy bég faw faw wu ci yow ngay sant nuy sant dootoo mer te dootu nu mer am ngeen naa gëm dolli kóotig wóolu it bun lor jigéen it teg gi wéy bëxtil fi nun am leen am gëm dolli kóotig wóolu it bun lor jigéen yi teggi wéy dox ci sunun yàlla mu dàkkul tiis ak yi lor jëkk tey te ku yàlla dàkkul lor asal gis ci lu bon ak cant daalanu war gu ànd ak aw ndigal ak tuuba ku sellal te takkoo jëf ju gën kuñ faggulum mucc ca njariñ day sante xol ak lan nañam teg cay cëram gii cante gën aajootumaa am lëf lu dul kattan gu may sante ka jaamoo yàlla lii laa bëgg man te amu lu may sàkkooti it ndare ay ngërëm ak yàgg duniyaa ndaxte saa jëf yi sa kanam sama xol bi soppul tey lu dul ak jëm kanam ak am la mbooleen xëj yàlla ya am ci kun yow ban ba may noote njariñ yuy lor niwul ak ngir mu jub ak xol bu sedd ak gudd fan xam naa samay mbir ak sama jur jox la def wootal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéen xam naa samay mbir ak sama jur jox la des wootal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéen bàyyi naa samay bokkit ca mbaakol ñëw fi yow ngir bëgg sa cant ak sa jaajëf ak i galem tey nag sa gan laa sa murit laa maa ngi nii yaa dàq gan mbooleem ku ne faa man na gan fagul mu ngan goo xam ni moo gën gépp ngan tey ak ëllëg yaa gën sunuy waajur ci nun baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waaj yi ma gis am ci ngërëm baaxal te bul gis mukk nit kuy bon di bon bay tax nga naa waaj yi ma gis am ci ngërëm ngir yàlla kum jubloo jagal dal lay jagal moomoo ni jaamam ay yëfam ku mu jox nga am danga gis ku jóg jiituy moroomam dellu bon gis waaju bon xëy jiitu lii doy naa xalam doo xam ka ngay gën mbaaka lay gën jëkk dee kuy dund yàllaa xam mbiram xam ak mu jëm ragalal te goo gis nee ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax jii foofu jëm ragalal te koo fu gis nee ko bul may fàtte kët lii laa la wax bul fàtte wax jii foofu jëm farlul te bul sàggan te bul yeexew yiwit lug àll yaayaa boo ko soo boo leemu yam gii kër du kër goo xam ni dan fiy sax di wéy dan fiy liggéey ak wut ngërëm lii nan ko xam kuy fas ni kër gii kër la bay maaree këree nan koy yërëm ndax léegi muy yuuxoo ko xam firxaw na ab yéefar la wan boo xam ni daawul julli daawul def lu dul jaamuy xiram firxaw naa bi yéefar la woon boo xam ne daawul julli daawul def lu dul jaamuy xiram te nga xam ne teewul muy amit nguuram gu réy tey weddi sangam gën ji am am moo di gëm moo tax ko am gëm deeti wax man ooma yëf daf ko yëgul boobee ndeket am nay yëfam te ku làqu gëm kookee gërëm yàllaa ko war buy wan sa tey saf nit ki nit moo am ndaxam def naa bayit yi yóbbalu bépp jullit ak yóbbalu saa bopp yal nan am ngërëm def naa bayit yi yóbbalu bépp jullit ak yóbbalu saa bopp yal nan am ngërëm yow ahmadul xaalidin nag ma wax la yewit loo xam ni lii boo ko toppee jub te yëkkatiku yow ahmadul xaalidin nag ma wax la yewit loo xam ni lii boo ko toppee jub te yëkkatiku boo yokkiwul géesu woo seetoo ci kenn te aw ndigal di wéy danga am loo xam ni foogu la ko sa itte jii na ci yow tey jii bu wàññikuwul tey jëm kanam bis bu set loo bëgg leengati ko bul yokki bul tayyi bul yàkkam ci dëgg mu ñël balaq ndam jot ci sa cër am ngërëm yewi ko ku gëm te muñ yewi koo ci coono faw wa fi lor te jëm ci ak cant faw wa ndëggamal bàyyi ko bu roy ci kenn na ngay wéy yow ba dee fi la roy ñu tuuti ñoo mata roy ngir jóppawal batiku taji ku sàmmul mbiram far dëddu ñépp te wéy du dem ndeken dematul koy dem ñu farteeku addina day téye nit saytaana day téye nit bakkan dafay téye nit ba nee xamit lori ko mbokkit dafay doge tey nag waa yàlla waaju te jëm yilee nga koy téye mbokkam naa ma jóg dogi ko mbokkit dafay doge tey nag yàlla waaju te jëm yilee nga koy téye mbokkam naa ma jóg dogi ko way daala am solo ngir foo gis murit bu ko def ku koy téye ka dogit day mujj rekk ba ko tegal sa bët ak sa xol ak say cërit ci ndigal te dal di wéy faw muuroo way te bul muriku tegal sa bët ak sa xol ak say cërit ci ndigal te dal di wéy faw muuroo way te bul muriku koo xam ni dëddu na boppam dëddu ñépp te wéy ñu fal ko sant ko may kow tagg yëkkati ko yow xaali xallal sa digg ak yàlla xallu set wujub te yaa aw ca nag ngir yàlla aw gu rafet yow xaali xallal sa digg ak yàlla xallu set wujub te yaa aw ca nag ngir yàlla aw gu rafet tuubal lu bon faw dëddu mooy te jublu ndigal te dal di soppiku tey farloo ko def lu ko mat bayil werante ba caaxaan ak lu lay taxa bon te def ko am bopp am ak doy lefa gu rëy fit ku tuutu fit doo ko gis am cër bu rëy bu ñu naw koo gis mu am lu ñu naw waatal ni fit wasewut bul def ku yéesi moroomam kuy xuloo katawat doo gis ku gën ci moroomam muy xuloo katawat mu ñëw te bul jàmbatub coonoo kaxul ak mer ku am la ngay wut sa waamee coono yépp sewet lu yàlla dindi mu dañ loo xam ne far na ko yit mu dal di far bu faree ak coona coona ba set faggul ngërëm faggu ab yar faggu jëf ju rafet yii rekk ñoo mat di faggoo kay dagaanaka wut yii ñoo di koomi murit bul ittewoo ndare yii bul gees ñuy faggu ak jur daala kay wutu nit foo nekk nekkal ci aw yiw bul jigeeti lu bon te bul jógeeti ci aw yiw kon lu bon du la jot jubal te way ci lu jub te yéene ñépp lu jub tey wax ci ñépp lu jub tey sopp bépp jullit na nga yërëm ndaw teral mag def sa kem na nga def sa bopp kon yow sa digg ñépp jag te rafet subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin